wa aslihu bayna axawaykum wa taawanu alal birri wa taqwa dafay duggaat dimbalante ci lépp lu baax kon niki noonu jullit bi sori lépp loo xam ne mën naa jur ak noonoo bu jafe-jafe amee nag ñu gaaw lu ñu mën ci dindi jafe-jafe booba kon loolu lu ci am solo la kon jafe-jafe bu amee li ci gën mooy rafetal ko mooy fexe ba ñagas-ñagas boobu deñ loolu nag dina wuteeg mel ne kuy xamb safara soosa safara si ñu gis muy bëgg a tàkk muy saxaar wala muy doog a jàpp fexe koo fay mooy li ñu war suñu diggante <coughs> waaye bu fekkee ne ak ni jamono demee bokk na ci li yéeme ci jamono mooy jëmm ju ne tey mën naa mën naa nekk caméramanu boppam nekk preneur de son wu boppam def ab scénario nekk monteuru boppam wax la muy wax wala mu filmer la muy filmer waaye li gën a doy waar nag mooy jëmm ju ji nga xam ne moo koy def te léeg-léeg mu xeebu lool ba mel ne man tëju cib néegam def loola mën naa génn daj àddina def lu rëy a rëy ci ay jafe-jafe te mën naa am du kenn sax mën naa am ku xeebu ba mel ne man la waaye bu ko defee nag dafay am accès ci mu mën a jóg atteindre ñu baree bari laal lu bari kon loolu dañu ko war a bàyyi xel mën na am ka koy def sax ak fu mën a mbubboo ak fu mën a bokk mën na am am fa solo waaye loola muy wax nag nga xam ne léeg-léeg du engagé ku dul moom bu génnee ci pénc mi génn ci réseaux sociaux yi génn ci média bi te loola mu def kat moyens yooyu mu am kenn ku ne am na moyens yooya kenn ku ne mën naa jër tey téléphone am def lu mel ne la mu def kon bu ñu ko ca fekk see ku ne yëkkati sëb dënn def lu mel noona kon loolu dafay wuuteeg li ñu seen borom digal muy defaree ab diggante kon ñu bàyyi ko xel xam ne mënta ñàkk cib jullit ndax ak jullitam mat ak ndax ak jullitam rafet mbokk jullit yi kuy wax luy defar luy tax li ñu suñ borom digal mooy ñu jàpp na ay mbokk lañ te rafetal mbokk gi ku ko jàngat ba noppi war ngaa bàyyi xel war ngaa gersu li nga xam ne dafay yàq dafay yàq mbokkoo googu li nga xam ne bu amee daal dana xajamal diggante mbokkoo googu loolu def cee bokk lu mel ne alxasadu mooy ak kiñaan walla mbañante albagda kon iñaan diggante jullit ak moroomu jullitam walla jullit bi bi identifié wu ne ci kuréel sangam la bokk digganteem ak geneen kuréel loole dafay indi leneen te xam ngeen ne ki ñaan bokk na ci tawati xol yi nga xam ne ay loram lu lu tar la ci jullit bi bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne dafay yàq aw yiw ni safara di lekkee mat kon ak kiñaan dañ war nañ ko moytu ci suñu biir en tant que ay jullit moo xam nag diggante individu bi ak moroomam diggante kuréel ak geneen kuréel ndax li li bu mbokk googu mbokkoo googu bu dëgëree sa mbokk jullit lu mu am ci lu baax da ko ko war a yéene da ko cee war a ndokkeel da ko koo war a fésal waaye waroo ko ko iñaane te xam ngeen ne iñaan day bokk na ci li tax mu doy waar mooy dafa mel ne yow amoo amoo sax amoo amoo amoo affaire ak ki ngay iñaan ki ngay iñaane waaye dafa mel ne ki ko may li nga koy iñaane nga amal affaire muy jëmmi suñ borom subhanahu wa taala dafa mel ne dogalub suñ borom neexu la dafa mel ne dangay ngay contesté li suñu borom def te xam ngeen ne bokk na ci ponki ngëm mooy nga gëm dogal xam ne lu suñ borom dogal danga nga koo war a nangu te mel na ne iñaan googu nag bari na lu muy jëf ci suñu société yi lu ci bari daf koy jëf diggante kër ak kër diggante kuréel ak kuréel waaye dem na sax ba ci diggante ay mbokk te xam ngeen ne doy waar la lu mat a bàyyi xel la yàlla suñ borom xéewalam yi lu yaatu la ngëneelam yi lu limu la kon boo gisee sa mbokk jullit loo xeemeem yéene ko ko te ñaanal ko ci te boo ko xeemeemee nag nga ñaan ko suñu borom subhanahu wa loolu mooy teqale diggante alxasad al ak al xibta lislaam may na jullit bi mu gis kii kat xéewal gi mu am mu yéene ko ko ba noppi nag xeemeem ay bu ma suñ borom mayoon limu ma may ba ma def ci nangam ak nangam wala ma ba ma def ci lim ci def kon iñaan dafay yàq diggante jullit yi suñ borom dafay maye bu mayee kuréel gii lii yeneen kuréel yi buñ ko ko bëggee iñaane day indi jafe-jafe bu mayee jëmm jii lii bu ko ko yeneen jëmm yi bëgg a iñaane day indi jafe-jafe kon ñu bàyyi ko xel mu bokk ci liy yàq mbo bokkook jullit yi ci société bi muy as suxriya suxriya mooy doyadal nit wàññi nit ree nit ree goo xam ne da nga ci jublu ak doyadal ko ak suufeel ko suñ borom tere woon na ko te ba mu ko teree dafa wax ne kat mën na am ñay doyadal ñeneen ñeneen ña ñuy doyadal ñoo leen gën kon lu mat a bàyyi xel la ndax suxriya googu mokkari googu ñàkka nawloo googu dafa bokk ci lii jur ci diggante jullit yi ak noonoo di ci jur tamit ak mbañeel moo tax lu mat a bàyyi xel la jullit dafay nawloo moroomu jullitam inna akramakum inda allahi atqaakum ak ngëneel bu amee ci ragal yàlla rek la am ak ngëneel ci ragal yàlla la am kon wàññi sa moroomu jullit walla nga wàññi aw kuréel wala ñu mën a doon loolu dafa bokk ci li ngay xam ne li nga xam ne dafay jur ak yàq ci mbokk ak jullit yi wala ci société bi niki noonu attanabus bil alqaab maanaam di wooyee nit ki wala kuréel tur wu mu bëggul tur wu mu sib loolu diine daf koy tere diine daf koy tere kon di woowee nit ki tur wu mu bëggul te li ci bari dafay jëm ci wàññi ko loolu bokk na ci liy yàq diggante société yi suñ borom am na fu mu ko boole dinañ ñëw incha allah ci aaya ba bokk na ci liy yàq société bi di yàq mbokk ak jullit yi mooy jëw jëw dem sa mbokk jullit di wax ci sa meneen mbokk loo xam ne bu fa nekkoon doo ko ko wax te yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dafay yàq ñu war koo wattandiku niki noonu bokk na ci an namima lépp luy jaxase ay diggante moo xam ci wax la wala ci jëf te loola nag mën naa yaatu ndax bu fekkee ne benn pénc bi benn minbar bi benn micro bi bu teyee nga woo diw mu ñëw wax ci boppam wax ne ku dul man du kenn ëllëg nga woo moroomam mu wax ne moom moo fi def lu fi kenn defut moo mën lu kenn mënut bu ëllëgee nga woo keneen mën na am bu yàggee namiima googu kat mën na caa tàbbi te la muy yàq moom itam day nekk lu baree bari kon ñu bàyyi ko xel bokk na ci li yàq bonnoog jullit yi di jeexatal ci société bi muy suu u zann ñaaw njort ñaaw njort dinañ ci ñëwaat inna baada zanni ismun yenn njort yi daal ñaaw ñaawteef la bàkkaar la mu mel ne bo boo taxawee ci aaya bi aaya bu mat taxaw la xëy na sax boo seetantalul naka mën nga wax sa mën nga ne ñaaw njortukat rek nan la mën a nekkee bàkkaar fekk na la mën a jur moo bari sa mbokk jullit mën na la romb koo xam ne dala daan nuyoo gi te saa su ne mu romb la tey ngay wax ak nit mu mel ne la ngay wax ak moom mu jàpp ne lu lu leen ñor la bëggu a déranger mu tàllal la loxo dem nga ñaaw ca njort mu mën a indi lu bari seen diggante fekk na dafa doon sàmmoonte dafa doon bañ a ba bañ a jeexital wala déranger seen wax boobu misaal la rek ñu mën cee jël lu bari nga xam ne lu rafet. la jublu doon ko def waaye boo ci ñaawee njort gisee ko neneen mu mën a jur leneen lu baree bari kon yooyu yëpp luy yàq société la mel na kon war nañoo bàyyi xel dante waxtu wi mat na lépp loo xam ne dafay yàq diggante jullit yi ñu wattandi ñu wattandiku ko war a bàyyi xel sax yu mel ne wax yi waxi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi na zaynaba bi waxee ne suñ borom na ko na fegal loram képp ku mën a doon moo xam ku jege la wala ku sori wala sax koo xam ne étranger la donte ab yéefar la nga bokk ak moom société bi waroo ko lor kon ñu bàyyi ko xel yaa barru rahmatuka arja indana min amalin naksibuhu faghfir lana yaakaar yow suñu borom sa yaakaar wala sa yërmande lañ gën a yaakaar ci jëf ju ñuy jëf kon nag ñu jéggal wali jamii al muslimina ajmain ak mboolem jullit yi wal muslimaati kullihinna ajmain kon ba ci sax wa jumlatil ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal ajaanibi kon ñu bàyyi ko xel ñu defaraat suñuy jikko ñu bàyyiwaat xel lu baree baree bari ci loo xam ne dafay yokk yàq société bi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam